abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay tijil kasalada sidi baram aoubillahi min cheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salli allahuma ala sayidina muhammadin alfatih alxaatim naasir alhaadi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaar alazim radiallahu taala an asxaab rasulillah wala xawla wala quwata illa billah ya himmat cheikhi xuduri lana bi hada almaxdari waltaatufi bi nadratin taati lana bi zafari ñëw léegi suñu darsu nasiha ci mawlana Cheikh Tijaani radiallahu anhu ñu ngi yemoon ci mawlana Cheikh Tijaani ci melokaanam bi nga xamante ne borom téere bi wax na ne Cheikh Tidiane eh, sikim bu tal la yoroon sikim boo xamante ne dafa sëqoon kawar itam waaye li gën a bari ci kawar gi itam kawar gu weex la eh, mu ne Cheikh Tidiane radiallahu anhu yamilu ilal qisari ida raaytahu mufradan boo gisaan Cheikh Tidiane dafa mel ni ku gàtt su fekkee ne dafa nekk moom kenn da gis dafay nekk ku gàtt radiallahu anhu mu ne wa ida raaytahu maa annaasi kaana rabaatal qaddi su fekkee ne nag gis nga ko mu nekk ci biir nit ñi dafay yemambaay du nekk ku gàtt dafay njool ba yemoo ak nit ñi dafay tolloo ak nit ñi nit ñi duñ ko sut radiallahu anhu mali idaam ku taloon yax la yax bi dafa dëgëroon yax bu yaatu la amoon yax bu tal radiallahu anhu waaye ku daan kaalawu itam ba kaalaw ci ci ci côtéem yi maanaam wetam yi leex yeeg yooyu noonu da ko doon kaala radiallahu anhu dégg nga moo tax mu ne wa yaxitu imamatuhu min warai li alla tashxaluhu fi salaat dégg nga waxtu gis rek mu ngi def kaalaam bi noonu ci ginnaaw yaa ngi dégg ngir mu bañ koo soxla ci waxtu julli wala yu demee noonu dégg nga mu ne wa kaanat chuqatan kaamilatan min athawbi rafia maanaa ku amoon colkala ku daan sol la colka yu yëkkatiku radiallahu anhu ku fonkoon yëre la daal ci gàttal xafida radiallahu anhu alqur'ana xifdan jaydan wa huwa ibnu sabati awaamin cheikh tidiane radiallahu anhu mu ngi mokkal alqur'an mokkal gu wér boobu mu ngi am juróom-ñaari at comme nit nga xamee ne borom laamiya bi nga xamante ne téeram mu ngi tudd rixlat tahaani moom moo ko wax waqad xafida alqur'ana saabia hijjatin mujidan majidan ay tiflin bada tifla radiallahu anhu foofu Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane juróom-ñaari atam ci la mokkal alquran fi nit war a duggee eh, ci jàng alquran yaa ngi dégg moom foofu la mokkalee alquran boo demee ci baay radiallahu anhu nga xamante moom moom itam mu ngi ko woy ci toxwatu eh, toxfatu ataayibul anfaas yaakaar naa ci téeram boobu la ci jaamiu fi mu wax ne summa arrijla yan bi daari bi sahara da ngay fekk bàyyi di wax ne xafida dikra wasta saabii amin an suyuuxin min dunihim kuramaaw radiallahu anhu bàyyi mu ne mokkal na alquran moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu boobu mu ngi am juróom-ñaari atam mu ne ci ay sëriñ yaa ngi dégg ñoo xamante ni ñu tedd lañ ñoo xam ne ñu sell lañ radiyallahu anhu eh, jëlee nañ ci ibnu atiya ci tafsiram ak ibnu abbas dégg nga radiyallahu anhuma ci seen tafsir wax nañ ne man qara alqur'ana qabla an yaxtamila fa huwa mimman utiya alxukma sabiyan ñu ne képp koo xam ne jàng nga alqur'an yaa ngi dégg avant ngay nekk ku mat maanaam nga nekk xale nga mokkal alqur'an ñu ne yow yaay ki nga xam ne jox nañ la xikmatu yaa ngi dégg te fekk yaa ngi nekk ndaw dégg Eh, eh, comme ni nga xamee ne yàlla wax na ci alxuraan ne wa aateenaawul xukma sabiyan maanaam yaxyaa man maa ko jox xukmatu xam-xamu xikma yaa ngi dégg te boobu mu ngi nekk xale naka noonu itam isa alayhi salaam kon eh, ibnu abbas ak ibnu atiya wax nañ ne képp koo xam ne mokkal nga alxuraan te fekk matagoo nekkagoo ku mat dégg nga majeuragoo mu ne su boobaa yow yow ki nga yow yaa ki nga xam ne jox nañ la dëgg-dëgg xukmu dégg nga ci ci ci ci ci sa bii maanaam bi nga nekk xale yan yàlla yéegin ciy maratib bi loolu amee eh, mu ne wa kaanat qiraatuhu radiallahu anhu bi riwayati nafiin mooy riwayati warshin mu ngi jàngee alquran ci riwayatu warshin ci la jàngee alquran dégg nga alal wali saalih sayd muhammad bun hammu Tijaani ci wali bu sell moom moo ko jàngal dégg nga wali buñ tuddee saydi muhammad bun hammu Tijaani Seydi Mouhamad bun Hammu Atijaani kooku mooy Serigne Daara Cheikh Tidiane moom moo jàngal Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waaye mu jàngal ko itam bi riwaayati warshin wa cheikhu hada qaraa ala alwali salih Seydi Isa bu Ukaz Seydi Mouhamad bun Hammu Tijaani moom itam mu ngi jàngi alquran ci waliyu bu sell bu ñuy wax Seydi Isa bu Ukaz Seydi Isa bu Ukaz waa waa waa waa waa aynu maadi la moom moo jàngal Seydi Mouhamad bun xamu tijaani radiallahu anhum yaa ngi dégg koo xamante ne almashhuru bil wilaya ku siiwoon la ci wilaya yaa ngi dégg ci lef moomu noonu yàlla daf ko mayoon ku amoon wilaya la ci njàngalem alquran ci xam-xam yeeg yu demee noonu mu ne wax na ne wa dhukira anhu annahu raa rabbal izzati fi nawmi nettali nañ ne moom gis na yàlla ci nelaw moom Seydi Isa bu Okaz dégg nga bi gisee yàlla ci biir nelaw wa qara alayhi alquran bi riwaayati warshin mu jàngal ko alquran ci riwaayatu warshin dégg nga mu ne bi mu ko jàngalee min awwali ila axiri ca commencement al kaamil ba ba ca ba fa qaala lahu rabbuhu mu ne ci la ko boromam wax ci la ko yàlla wax ne ko hakada unzila mu ne ko nii tigi laa wàcce alquran nii tigi laa wàcce alquran alhamdulillah ci loolu wa tuufiya cheikhuhu hada saydu muhammad bun hammu am alfun Seydi Mouhamad bun Hamu Tijaani mu ngi génn àddina dégg nga euh, atam 1162 dégg nga boobu Mawlana Cheikh Tijaani mu ngi am 12 ans dégg nga boobu Cheikh Tidiane mu ngi am 12 ans ci la génn addina euh, euh, moom Seydi Mouhamad bun Hamu Tijaani mi nga xamante ne moo jàngal Cheikh Tidiane dégg nga alquran. bi loolu amee suma baada xifdihi alquran intaqal li taxsil al ulum al usuliya wal furuiya ginnaaw bi nga xamee ne mokkal na alquran dégg nga après nag ci la commencé dem yaa ngi dégg di wuti xam-xam xam-xam usul ak xam-xamu furuuy yeneen xam-xam yaa ngi dégg xam-xamu fiqhu dégg nga xam-xamu mantiq dégg nga mooy littérature ak yu demee noonu yëpp ci la dem wuti ko radiallahu anhu mu ngi ko jàngee fa qara ala cheikh al allamata seydil mabrouk bun bu afiya al madawi dégg nga tijaani moom cheikh tijaani mu ngi jàngee eh, xam-xamu sharia ci seydi mabrouk seydi mabrouk bun bu afiya dégg nga foofu la jàngee boo demee ci baay radiallahu anhu baay oleeg moom ci biir xasidaam bi pour nga xam ne xasida cheikh ibrahima yi benn bayit bu nekk taarix bu yaatu yaatu yaatu la tënk bayit bu nekk taarix bu yaatu moo ci tënku parce que wax na la bi mokkalee alquran ci sëriñam mooy Muhammad bun Hammo Tijaani yaa ngi dégg bàyyi an bàyyi indiwaat ci beneen bayit mu ne summa taaqat nafsul imaami li ilmi yaa lahaa himmatun lahu aliyaau radiallahu anhu noonu la ko bàyyi wuyee mu ne nag ci la bëgg moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu imaam boobu ma lay wax moom Cheikh Tidiane yi mu ne xam-xam la bëggoon ñeel ko xam-xam dégg nga mu ne ndaw yitte bu kowee ndaw yitte bu kowee ginnaaw bi mokkale alquran dafa jógaat encore pour sakku ji yeneen xam-xam moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ne war wa rawaa an mabruka baada ulumin summa rabbi aata lahu ma yashaau dégg nga mu ne ci la jànge nag ci mabruk mabruk boobu bàyyi di tudd ci bayit yi kooku mooy saydi mabruk bun bu aafiya al madawi saydi mabruk bun bu aafiya al madawi dégg nga Cheikh Tidiane jàng na ci moom yaa ngi dégg Euh, <clears throat> téere lan la jàng ci moom mooy muxtasarul xalil yaa ngi dégg euh, jàng na ci moom cheikhu xalil dégg nga jàng na ci moom risala jàng na ci moom muqaddimatu izziya ibn rushdin dégg nga waaye jàng na ci moom laxdari yi itam dégg nga kon Seydi Mabrouk moomu jàngal na Cheikh Tidiane lu bëri ci xam-xamu shariatu islamiya yaa ngi dégg wax ji waaye <clears throat> mu ngi génn àddina 1166 1166 booba Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ngi am 16 ans mu ngi am 16 ans biir 16 ans yooyu noonu yaa ngi dégg sëriñu alxuraanam bi ba mu génn àdduna Cheikh Tidiane mu ngi am 12 ans dégg nga waaye da nga gis ne ci diggante boobu noonu dans 4 ans yooyu yëpp wala lu ko ëpp dégg nga mokkal na ci téere yooyu yëpp ci shariatu islamiya nga xam ne kii ku yàlla loon la ku yàlla may la yaa ngi dégg euh, euh, euh, futuhaat ku teel a am futuhaat la. waaw ah, maanaam ku teel am ubbeeku la ci xam-xam dégg nga baay eh, eh, mm, eh, kii foofu nag la baay de wax ne ne raasa cheikh yi bu xuura kulli ulumin dégg nga kalla an darkihi kalla an darki sha'wihil ulamaau radiallahu anhu mu ne Cheikh Tidiane banqaasoo na yaa ngi dégg moom Cheikh Tidiane cheikh yi sama sëriñ mu ne bu xora kulli ulumin mboolem géeju xam-xam yi boo ko ci laal rek da ngay fekk géej la ci ci banqaasoo tellement yaa ngi dégg yàlla may na ko ci cër dëgg-dëgg cër yaa ngi dégg mu ne néew na yaa ngi dégg néew na ci koo xam yaa ngi dégg ci kemam ci borom xam-xam yi ku xam kemam ci xam-xam moom Cheikh Tidiane fi mu toll ci xam yaa ngi dégg loolu nag lu mu ko jàngal mooy sàkku xam-xam bi nga xamante ne dégg nga mu ko doon sàkku xam-xam moo tax borom téere bi mu ne summa tamaada fi talabil ilmi zamanan bi baladi hatta hasala min al ulumi min al ulumi man tafa bihi wa saara kama qaala al qaa'il <laughs> dégg nga mu ne foofu nag ci la commencé dem di sàkku xam-xam dégg nga ab jamono yaa ngi dégg ci réewam mu ne ba mu am ci xam-xam loo xamante ne dégg nga euh, euh, lu mën a jëriñoo la yaa ngi dégg waaye lu mën a jëriñe la itam yaa ngi dégg ba benn woykat euh, woy na ci <coughs> dégg nga anhu mu ne woykat bi mu ne fa fi kulli lafzin minhu chatrun min al muna wa fi kulli satrin minhu iqdu min durar dégg nga fa kaana radiallahu anhu yudarrisu wa yufti wa yabussu al uluma dégg nga wa yubayinu minha al mantuqa wal mafhum dégg nga radiallahu anhu mu ne bàyyi mu ne radiallahu kii borom téere bi mu ne Cheikh Tidiane radiallahu anhu dégg nga eh, daf doon jàngale kaana yudarrisu daf doon jàngale wa yufti dafa doon def itam ay fatwa maanaam daf doon waxtaanee yaa ngi dégg ay xam-xam dafa doon def ay fatwa dañ ko doon posé ay masala ci sharia islamiya ak lépp mu ci waxtaan mu ne wa yabsul uluma mu daan joxe ay xam-xam yu yaato yaatu moom Seydi Tidiane radiyallahu anhu wa yubayinu minha al mantuqa wal mafhum mu ci leeral yoo xamante ne yuñ mën a wax la ak yoo xamante ne yu ñu comprendre la yoo xamante ne par compréhension rek nga ko mën a xamee yaa ngi dégg mooy faxamu rek nga ko <coughs> mën a amee <coughs> yaa ngi dégg loolu yëpp <coughs> Cheikh Tidiane tolloon na foofu noonu moo tax baay bam koy tagg ba tey ci même bayit yooyu noonu gis nga xasida Baye bi dafa méngoo ak taarix bi nii waaye wax naa la ne baay bayitam yi bayit bu nekk rek daanaka histoire bu yaatu la foofu nag la baay di wax ne aalimun maqulul ulumi dégg nga wa manqulan wa yufti fi qalbihi al yaa ngi dégg chaaxila nafsahu bi taati mawla nachitan fi l ibadati a aadaau radiallahu anhu dégg nga mu ne Cheikh Tidiane ku xamoon la xam-xamu maaqul maanaam xam-xamu xel xam-xam boo xamante ne xam-xam la bu ñu dund ci xel maanaam lu ñu yëg la comme xam-xamu zawku yàlla daf ko ci mayoon wa man kuulan ak xam-xam boo xam ne dañ koy wax mooy mooy écrite dégg nga lii lii lii lii li Mawlana Thierno Sane dem doon wax ne ilmul mawhub wa ilmul maqru ilmul mawhub mooy xam-xam boo xam ne dañ koy maye yaa ngi dégg mooy xam-xamu zawqi nga xam ne baay wax na ci eh, eh, eh, kii jamaatu bayna zawqi wa dirayati dégg nga dajale naa xam-xam bu ñuy mos ak xam-xam bu ñuy jàng xam bu ñuy jàng nag mooy ilmul manquul yaa ngi dégg moo tax mu ne aalimun maquulal ulumi yaa ngi dégg wa manquulan ku amoon xam-xam boo xamante ne xam-xamu xel la mooy xam-xamu lu nit di yëg la yaa ngi dégg waaye ak xam-xam boo xamante ne itam lu ñuy wax la yaa ngi dégg par par maanaam ci ci téere eh, maanaam nga koy jàngee ci téere nga koy jàngee mu ne wa yufti fi qalbil adwaau yaa ngi dégg ku daan fat maanaam ku daan fatwa la maanaam fatwa ku daan def ay fatwa la dégg nga bëriwaan na borom xam-xam ci ay masala yu ñu gàgg bu ñëwee ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu gàgganti leen ci téere yëpp te bu waxee dafay leer naññi naññi ñëpp dañ doon kontaan dañ doon yàkkamti mu togg ak ñoom di wax ci xam parce que moom buy wax rek ñëppay dégg ku jàng ak jàngut ku xam xamul dafay jàng dégg nga loolu moo tax bàyyi ni fi qalbil adwaa'u ci xol bi nag yaa ngi dégg aju leer la lu leer la leer moom moo fa nekk moo tax waxtu wuy wax rek nit ñi dañu comprendre la muy wax yaa ngi dégg dañuy mel ni ñuy jàkkaarloo la muy wax ni jahratan radiallahu anhu mu ne taqat nafsuhu wa xannat ila iftiqaai tariqi ahlillahi taala mu ne ci jamono jooju nag ci la soxlaawoo moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu yaa ngi dégg waaye mu jóg dégg nga yittewoo yoonu góor yàlla gis nga su ma taqat bi taqat bii ni ko borom téere bi waxee yaa ngi dégg mooy borom moom mooy mooy mooy Seydi eh, eh, Mouhamad bun Mouhamad Hajjuji dégg nga Seydou Mouhamad bun Mouhamad Hajjuji ni mu ko waxee ci téere bi noonu itam la ko bàyyi nettali ci ci ci xasidaam bi gis nga kii taaxat bi mu indi noonu la ko bàyyi te itam indee summa taaxat nafsul imaami li ilmin yàlla ha himmatun lahu aliyaaw radiyallahu an kii itam noonu la ko wax taaxat nafsu waxannat ilafti ilaqtifaa in tariqi ahlillah dégg foofu la bëggee nag foofu la yittewoo moom Cheikh Tidiane yaa ngi dégg eh, yoonu góor yàlla dégg nga wala inxiyaasu ilayhim mu gëlëm maanaam topp ci seen yoon yaa ngi dégg euh, di di wër euh, euh, wëli yàlla yooyu noonu ngir mën a jot dëgg-dëgg xam-xamu yaa ngi dégg wilaya bi nga xamante ne soxla woon na ko moom Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane mu ne wa kaana idaaka qad balaga min min al umri ihda wa ishrina sanna mu ne jamono jooju nag mu ngi am vingt et un ans moom Cheikh Tidiane jamono bi muy jog di wuti yoonu yàlla jamono ba muy jóg pour jaxasoo ak wali yàlla yi pour jot xam a wali yàlla foofu nag booba mu ngi am waa wa ishirina sanna vingt et un ans yaa ngi dégg ngi nga gis ne ni mu méngoo ak baay fii yaa ngi dégg nga xam ne baay à l'âge de vingt ans lañ ko ber booba goreel na lépp luy njàng moom itam radiallahu anhu dégg nga waaye ba mu amee vingt et un ans ci la taalif téere mooy ruuxul adab yaa ngi dégg radiallahu anhu kon gis nga Cheikh Tidiane à l'âge de vingt et un ans ci la jóg moom itam di wuti xam-xamu góor yàlla yi bàyyi à l'âge de 21 ans dëgg-dëgg moom itam boobu mu ngi commencé taalif ay téere bëri na yu ñuy jàng mu ngi ko bind ci après l'âge de 21 ans jëm 22 ans ba ni mu amee 29 ans radiyallahu anhu dégg nga kon Cheikh Tidiane radiyallahu anhu noonu la jóge ko woon yaa ngi dégg ci jamono jooju na à l'âge de 21 ans dégg foofu nag bàyyi itam indiwaat na bayt bi mu ne chaaxilan nafsahu bi taati mawla naa naashitan fil ibadati l aadaau dégg nga foofu nag shaaxilan nafsahu bi taati mawla mu ne foofu nag la Cheikh Tidiane yittewoo topp boromam dégg nga noonu la ko bàyyi indi ci bayit bi dégg nga foofu Cheikh Tidiane ci la jóg nag yittewoo topp boromam rek yittewoo jaamu yàlla yittewoo tudd yàlla yaa ngi dégg waaye mu nekk ku sawar ci jaamu yàlla yi cëram yi dañoo sawaroon ci jaamu yàlla yi yaa ngi dégg wuti ak eh, sama genre yi léegi nga xam dañoo tayal bëgg cër ju kawe bëgg yëkkati ko ba noppi te seen dund bi yëpp dañ koo tayal a jaamu yàlla boo waxee julli ñu naan ah julli nangam nangam wirdu waaye wirdu gu bëri gii jarut ngay wirdu lu bëri nangam na te xama wali yàlla yi dañ daan zikkar lu bare bare bare bare bare bare loolu na ci taalibe yi bàyyi xel ñëpp nañu roy Cheikh jaane ci ñeme kurus waaye nañ ko rey ci ñeme jaamu yàlla ku daan jaamu yàlla lu bari la cëram yi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo kii woon ñeme jaamu yàlla dégg dégg nga radiyallahu anhu mooy lan shaaxilan nafsahu bi taati mawla nachitan fil ibadati al a'daa ku yitte woon boromam la ku daan jaamu boromam la waaye ku sawaroon la ci jaamu yàlla ndax cërëm yi ñoom ñoo sawaroon ci jaamu yàlla noonu la Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu meloon dégg nga foofu nag fa awwalu man laqiyahu asheikhul kaamil kim njëkk a dajeel mooy sëriñ sëriñ bu mat sëriñ boo xamante ne xutbu la ci jamonoom mooy xutbul waasil xutbu bu àgg ci yàlla mooy mawlaana tayib yamlaxi al alami kooku la Cheikh Tidiane njëkk a dajeel dégg nga mooy mawlaana tayib yamlaxi al alami moom la njëkk a dajeel dégg nga dafiinu wazaan moom lañ suul ca wazaan dégg nga dëkk bu ñuy wax wazaan almutu fi yowm al ahad dégg nga samaniyata eh, achara chahri rabi thani am alfun wa mia wa eh, wahid wa tamanin dégg nga mu ngi génn àddina moom dafin wazaan mooy mawlaana tayib yamlahi al alami tayib yamlahi al alami moom la Cheikh Tidiane njëkk a dajeel ñu suul ko ci Wazaan mu ngi génn àdduna 18 yaa ngi dégg ci rabiu saani yaa ngi dégg ci mooy weeru rakku gàmmu dégg nga 1181 yaa ngi dégg booba Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ngi am 31 ans booba Cheikh Tidiane mu ngi am 31 ans moom la njëkk dajeel mooy Cheikh Mawlana tayib yamlahi al alami yaa ngi dégg fa axada anhu sayidna radiallahu anhu dégg nga wirdahu mu jël ci mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu jël ci moom kon wirdoom mooy wirdu wa boobu noonu yaa ngi dégg <coughs> dégg mu jël ko yaa ngi dégg wa ajazahu fi talqinihi ci saa si nag la ijazaal Cheikh Tidiane anhu ci may wirdu boobu noonu famtanaa min al dégg nga li ihtimaamihi fi dalika al waqti bi amri nafsihi dégg nga foofu nag la Cheikh Tidiane bañ yaa ngi dégg nanguwut jël ijaaza boobu noonu dégg nga ngir lan ngir dimbale boppam waaye ngir yitte bi nga xamante ni yitte woon na ko boppam yaa ngi dégg ci waxtu woowu noonu ngir mën a jot ci maqaama yu kawe yi su ko defee audio yaa ngi gudd maa ngi tënk fii ba beneen incha allah xas taarix bi laa bëgg a jël di ko compiler ak. xasida Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu pour ñu xam ne xasida Cheikh yi bayit bu nekk rek taarix lay nettali bayit bu nekk rek taarix lay nettali du ni nga ko jàng ci téere bi noonu la tënkoo waaye bayit boo jàng rek da nga ci nettali taarix bu yaatu yaatu yaatu yaatu radiyallahu anhu allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqqa qadri wa miqdaril azim abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay tijil kese la doom si di baram